Turn wala daal di dellu si ci olof ñu daal di toll ci seen ñetteelu édition bile événement nag bu ñu jagleel nit ku ñuul mébét bi moo di. dañuy dalal africain yooyu noir africain yooyu dalal la leen ñu dellu si waat ñëw seen biir dëkk parce que ñoom dem nañu ba xool ni kenn mënatul développer Afrique sa ñoom ngeen boole leen si kon loolu am na solo. ñu daal di cee lëkkaloog mairie bu ndakaaru ngir ñu daal di màggal Black Excellence maanaam nit ñu ñuul ñi nga xamante ni nag ñoo gën a wone seen bopp bile yoon nag ñaar fukki nit la ñu daal di joxe raaya. tànneefu présidente Ramata ci man la ko jagleel ndax man maa fi teewal sportif yi waaye tamit man maay xar kanam bu soxna africaine bu moderne ba pare dynamique bu yees. ñeel sama wàllu liggéey nga xam ne mooy teewal Sénégal àdduna wërngal këpp. bile yoon nag république bu Haïti moom mooy gan gu mag gi ndax fa mu soqee ko Haïti dafa yàgg nekk seetu ci lépp lu jëm ci wàllu liberté ñu bari di ci sukkandiku suñu histoire daal nekk benn ñu nag Haïti ndax ñoo daal di yàgg bokk di xeex lépp lu jëm ci ak ak yelleefu doomu aadama yi fii ci Afrique loolu tax na ba ñuy fàttali bu baax a baax ne ne lépp lu jëm ci wàllum solidarité ak mbooloo dafa nekk loo xamante ni daanaka arme la ngir rek daal di defar suñu ëllëg. bile édition nag nar a am fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru sulet bés bu mujj bi nag maanaam ñetteelu fan bi surtout nit ñu ñuul ñi ñu bëgg amalaat li nga xamante ni nag namoon nañ ko moo di jaar ci bunt bi nga xamante ni moo leen di ubbil fi ñu njëkk a bàyyee ko